sebagai kandungan jat juga murtirnya usut ini boleh kandida Nailan Nailan kartu pukul London baru baru baru baru baru baru Jarajah Basil Jarajah Mar doon way léegi di Samba Mbaye am di xar yi fay bi nga jur ak mbokk yi fay nga bokk ndey ak baay léegi nag ñu dugal le premier magistrat de la ville de Dakar

Assalamu la coalition Samassakadou. Assalamu alaikum l'intercoalition. coalition may ma rek parce que sous suñu cadeau. honorable député parti Djibril Fall moom moo yor suñu kaddu tey ngeen Je ma rek ma ko introduire parce que ñun coalition la ñu Voter woote wuñu fii leneen de la coalition te ñu bëgg nag askan bi di xàmmee ak mën a ràññee kanam ak tur parce que ñu ñëpp suñu objectif du législatif kese suñu objectif mooy joxante loxo te tabax Sénégal ci dëgg ci fula ci fayda ak ci jom ak ci yërëm suñu askan lenn rek man lay wax balaa parti bi di yëkkati ay kàddu dama ne man amna na lu ma dul nangu parce que luma gëm moy politique dañ kay def ak sincérité wonte tamit ci deug Dakar yéen lay waxal tepp ku yewu bi Dakar fi xana ko don yéeféer mais soy jullit ya xam musulman nga ya xam catholique nga xam ngeen bu baax lan la alcorane wax ci nit bu dul wax deug la Bible tamit di rejeté nit de au nom de quoi le prophète Mohamed (p) et salut sur lui a classifié le mensonge comme un des péchés les plus dangereux du peuvent être commis par un homme au nom de quoi nous Al Quran dit Dak, bible bi Nangou au nom de quoi une société nous n'aurons nangu parce que nous avons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 Merci beaucoup merci beaucoup merci. Salam alaikum Sénégal. alaikum Dakar. alaikum Biscuiterie Nous Salam ngi di nuyu bu baax kenn ci di kilifa yi nga xamante ni ñoo dalal tey ci Biscuiterie yaatalal ñu yoon bi ba ñu mën a dugg si jàmm ak salaam muy le maire jibril Wade ñu bëgg ngeen tàcc ko bu baax. di ci teg ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xam ñoom ñooy la caution morale de la coalition sàmm sa kàddu muy Serigne Moustapha si ou wal Chidat. c'est quoi C'est Moustapha Sy Moustapha Serigne Moustapha a été de tous les combats démocratiques kon sëriñ Moustapha duma ci taxaw lu yàgg su ko wóoroon ne sàmm sa kàddu nekk ci ay tappale la nekk kon du ñëw bokk sàmm sa kàddu di gërëm bu baax di gërëm bu baax koo xamante ni tamit il a été de tous les combats ba mu nekkee ndawam ba tey dafa jël dundam yépp jagleel ko askanu senegaal jagleel ko wa Dakar ñu daal di koy jël teg ko injustice bu nek tay mu continuer di taxawal Sénégal di taxawal Dakar je veux nommer le président Khalifa ababakar Sall. di gërem di gërem ñi nga xamanteni ñom lañu andal di gërëm ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal tey te bu dul woon bu dul woon dama bëgg bu baax ñu déglu ma comme Sénégal léegi dafa bëri ay manipulateur wax jafe fi lool dama bëgg ñu déglu ma bu baax ñii ànd tey ci intercoalition bi su dul woon seen bëgg senegal su dul woon seen xam état